problème là normalement si ba maire on a un budget mairie. c'est ça qui est normal dans le budget le conseil municipal voté la voiture du maire ñu jëndal ko auto. ce qui est logique mais dañu demoon ba de lépp état bi léegi nag une collectivité au Sénégal kon tey bu ñu waroon jënd 601 yu jënd assemblée wax nañ ko c'est 165 44 au conseil 150 conseil économique donc 1000 44 ndax xel nangu na tey fi Sénégal toll ak crise bi ñu nekk ak Javé, nous ñu jënd 1000 44 pour plus de 30 milliards lu pour fanweeri milliards pour pour les élus wala pour ceci ou pour cela même état le gouvernement bi jëndatuñu fait ministre tay Le ministère de location la doxé parce que c'est la politique nouvelle assemblée nationale a un président ak député depuis deux ans ñun jëndatuñu auto parce que nous bobu lañu bëgg jox fonds yi mu dem ci collectivité yi Bobo bobu lañu bëgg a bourse de sécurité familiale moom lañu bëgg tabaxee tali yi au lieu que mu nekk la confort de ceux qui servent loolu mooy politique bi nga xam man moom lay doxal mën na metti nag waaye priorité mu ngi jëm ci population yi ak li ñuy doxal population cela dit soit ci gox yi parce que maire ba tey réservé nañ ne war na am oto war na am oto nag ñaari mbir la soit ñu xool kii jënd oto bi moo xam commune bi la wala ci fonds yi ñu xool nuñ koy defee si fonds yi ñu leen di jox wala ñu jox maire bi wala président conseil indemnité bu mot boo xam ne comme dafa am mandat comme dafa am mandat ñu jox ko luy indemnité buy permettre mu rembourser oto bi ci diiru juróomi at mais très rapidement il faut que ngeen waxtaan ak seen ministre de tutelle ñu xool formule am mais encore une fois les présidents de département et les maires font partie des autorités retenues pour avoir des véhicules de fonction